cant ñeel na yàlla kii borom bindee fi tey borom lépp mu ngi wax ci téeram bu tedd bi ne innahum fil khairat, lenn la ci ay yonentam ak seeni waa kër mu ne daan nan jëkkantu jëm ci yiw yi wa yaduuna naa ragaban daan maj ma daan nan jaamu karier ci yaakaar yërmandeem wa ragaban ak itim ragal mbugalam maa ngi koy sant te moom mooy ku santu ki mooy ku màgg ki tey seede ne amul benn buur bu nu war a jaamu dëgg ku dul yàlla di ko seedeel weetaay ci nguuram bu ko ak kenn tey seede ne sunu sang muhammad ab jaamam la bi yónnentam yàlla sunu boroom nu lay ñaan nga dolli teraanga ki xéewal dolli mucc ak barke ci sab jaam di sab yónnenta muhammad ak i ñoñam ak i saxaabaam mboole seen maa ngi leen di dénk yéen jaam yàlla yi te di ko dénk sa ragal yàlla màgg mi topp naaw loolu yéen way gëm yu tedd yi ñëw na ci xutbab sunu sang imaamullaahi alayhi waxam ji mu ne bu leen sukkandiku mukk ci seen jëfi boppay kese kese na ngeen sax rekk ci nekk ci diggante yaakaar ak ragal yaakaar yàlla ak yërmandeem ragal yàlla ak meram ak mbugalam ci kàddu yu barkeel yi le sunu sang imaamullahi alayhi salam mu ngi nuy jëmale dinu xirtal ci ñaari jikko ci jikko yi way gëm yi way wéetal yi yàlla te mooy ragal yalla ak yaakaar mu doon ñaari jikko yoo xam ne ci aji gëm ji dafa amee taxawaayu ñaari tank ci nit ni nga xam ne nit pour mu taxaw bu taxawaay bu dëgër du jeng du du dengi du daanu jëm genn wet loolu lii nu Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam dénk muy nekk ci diggante yaakaar ak ragal mooy tax jullit bi am ko kon boole yaakaar ak ragal te yamale leen mu ngi mel ni rek nit ki am ñaari tànkam yu wér di ci taxaw taxawaay bu wér di ci dox doxin wu jub di ko jariñoo ni mu waree kon nag ngir nit ki am ak yamale ngir nit ki am équilibre ci diggante li nga xam ne moom mooy ak ragal yàlla ak ak yaakaar yàlla ba ak dundam mën a doon dund gu jub fii ci àddina ëllëgit mu gañe xéewal yu màgga ya ca àllaaxira faw rekk nit ki yamale diggante yaakaar ak ragal bañ cee ëppal jeng jëm ci benn wëlis ba ca des ndax nit ki bu fekkee dafa def ragal ji ëpp doole yaakaar ji ci ci loo xam ne aajo waralu ko loo xam ne amul benn aajo bu tax muy ëppal ak ragalam ba mel ni yaakaar amatul benn yoon ci yërmande yàlla loolu nit ki bu ko defee loolu daf koy yóbbu ci li ñuy wax xonet day tax nit ki xonet xonet nag mooy day tax nit ki dootu am yaakaar ci yërmande yàlla te loolu du melaw jullit du male du melaw ku gëm yàlla ba tey itim nit ki bu fekkente ne dafa def wàllu yaakaar gi ëpp doole wal wetu wetuk yaakaar gi ëpp doole wetuk ragal gi looloo daf koy yóbbu ci kóolute kóolute maanaam nit ki bu fekkente mi ni dafa yaakaar yaakaar kese boo xam ne fegew ko ak bàyyi xel ak ragal yàlla loolu da koy yóbbu ci kóolute te kóolute googu moom moo koy yóbbu ci ak sàggante kon bu amul benn aajo bu war a tax nit ki ëppal doole wetuk yaakaaram na na yamale rek fexe ba yaakaar ji ak ragal gi yam mu nekk ci digg bi comme ni ñu ko sang bi imaamullahi mahdi digale nekk leen ci diggante yaakaar ak ragal loolu itam moom la ñu alquran digal yàlla suñu borom tabaraka wa taala mu ngi wax naan wala tey asu min rawxillaahi bu leen ñàkk yaakaar mukk ci yërmande yàlla innahu laa yey'asu min rawxillaahi nakka noon day amul kuy ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla illa alqawmul kaafiruun lu dul xeetu yéefar yi mu waxitim ne fala ya'manu makrallaahi illa alqawmul xaasiruun mu ne itim amul kenn kuy wóolu pexem yàlla lu dul xeet wa nga xam ne danu yàqale danu yàqule baarakallaahu li wa lakum fi alquraani alazim wa nafani wa iyaakum bima fihi min al ayati wa zikril hakim innahu taala borom jawaat na cant gépp cant ñel ne yàlla tabaraka wa taala sant naa ko cant gu bari gu sell gu nu barkeel seede naa ne amul benn buur bu nu war a jaamu dëgg ku dul yàlla bokkul ak kenn <coughs> di ko seedeel <coughs> di ko seedeel wéy tay ci nguuram bokk ko kenn tey seede ne Muhammad ab jaamal yonentam yàlla nu ko yàlla dooli teraanga ak xéwal dooli ko mucc ak barke moo ki ñoñoom ak i saxaabam mboole seen ginnaaw loolu yéen soppe yi yi du ñàkk yaakaar mukk ci yërmande yàlla waaye ab jullitim du naa warula naagu ci yaatuk yërmande yàlla li war ci jullit bi mooy mu nekk ci diggante ñaar yooyu diggante ragal ak yaakaar comme ni nu ko sunu sang imaamullahi mahdi alayhi salatu salaam dénke ndax ndax koo xam ne ragal nga tey ëllëg boo dajeeg yàlla yàlla dina la dalal képp koo xamante bi nii wóolu nga tey am aw fit jëmale ko ci yalla bu ëllëgee boo dajeeg yàlla yalla dina la tiital kon nag na ngeen ragal tey jii seen borom na ngeen moytu tey jii seen borom na ngeen ragal yalla ba bu ngeen di dajeeg moom ca bésub tit bu tit mu magama tit mu reima ngen ngeen bokk dalal bokk ca ñay am kóolute bokkit ca ña nga xamante bi ni ñooy gañe aljanna ju kawe ja yàlla defal jëlee nañu ko ci abi hurayrata radiallahu anhu mu jëlee ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xam ne moom yonente bi ci yàlla la ko jëlee directement muy xadiisul qudsi mu wax ne yàlla dafa giñ ne wa izzati moom yàlla mu ne mu ngi giñ ci màggaayam ne du booleel ab jaamam ñaari nee na du booleel ab jaamam ñaari ragal du ko booleel tim ñaari kóolute mu ne mu ne bépp jaamam boo xamante bi nii <clears throat> wóolu na ko wóolu na yàlla am na fit jëmale ci yàlla nee na bu yemal xiyaamatee yàlla dina ko tiital mu ne képp koo xam ne yaa ngi jaayu fit fii yàlla fii ci àddina boo dajeeg yàlla yàlla dina la tiital mu ne itam képp koo xamante bi yaa ngi ragal yàlla fii si àddina boo dajeeg yàlla yowmal xiyaamati mu dalal la neexal la féexal la bégal la kon yàlla waat na ne du boole mukk ñaari tiit mu koy tegab ñaari tiit mu koy tegab jaama du boole mukk ñaari kóolute mu koy mayab jaam bu la mayee nga wóolu fii di nga ragal fële bu la defalee taw tawfiix nga ragal fii boo dajee fële mu dalal yàlla nu yàlla doole xiir si jaamu ko ak topp ko ak ragal ko yàlla na nu yàlla doolee muccal ci seytaane yàlla na yàlla doole nu jàmm ci suñu réew mii yàlla dolli jàmm ci mboolem réewi jullit yi يالنا يالنا وسارة جامعة الدين بيب اللهم إنا نسألك allahuma رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على الإمام المهدي وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة